fanweereelu xadiis ak ñeent mm-hmm. an abi saciidin mm-hmm. jëlee nañ ci sayiduna abu saciid mm-hmm. alxuduriyi kay ko xuduratu jàngoon nañ biram démb radiyallahu anhu na yàlla gërëm ko qaala mu sami'tu dégg naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yonentu yàlla muhammad wax naa ne allah ni ko boroom xam-xam yi bi ko jiitu su fatxa baa mu jeexee damma laamu allah dañ koy diisal koy dañ koy diisal da rasulallah mm-hmm. su fekkee nag baat bi ko jiitu kasra mm-hmm. la jeexe mm-hmm. laam gi dañ koy nooyal ni ki bismillah kenn du wax bismillah mu ne sami'tu rasulallahi dégg naa yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa yaqulu mu ne man raa man gi ismu shart la Hmm? man ismu shart la boo hmm. xam ne dafay hmm. jazam raa fi'lu shart la man raa képp koo xam ne gis na minkum ci yéen munkaran mbon fal yuxayyirhu na ko soppi bi yadihi ak loxoom jumlaay fal yuxayyirhu bi yadihi mm-hmm. mooy jawaabu shartaay man mm-hmm. Mm-hmm. man raa ku gis na la wax ndax fokk nga gis ak sa bët walla mën nga dégg xabaar bi ba mu leer la bu boobaa kon man raa dootul nekkati ku gis kese waaye man raa ku xam na raa dana nekk dana firi xam mm-hmm. mooy ko xam-xam-xam mm-hmm. bu wér mm-hmm. moo xam dafa gis ak bëtam baa mu dégg ak noppam te xabaar bi wóor foofule dafay amee àtte loolu dafay amee àtteb gis képp koo xam ne mm. gis na mbon mm. xam na mbon mm. fal yuxayyirhu na ko soppi bi yadihi ak ak loxoom hmm? soppi gi nag balaa moo war wala balaa nga koo mën a def day fekk liñ ne mbon la muy mbon gu wóor gu leer goo xam ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci waaye su fekkee ne dañoo wuutee ci li nga jàpp ne munkar la ne munkar la hmm. almuxtalafu fiihi hmm. laa inkaara alayhi hmm. masala mu ñu wuutee te wuutee ga wér kenn du ca taxyir munkar ndax yow borom xam-xam bi nga déglu moo ne munkar la ki koy def borom xam-xam bi mu déglu ne du munkar te ñaari wax yëpp am cislaay hmm. su boobaa doo ko sañ a soppi hmm. Hmm. doo ko sañ a soppi su fekkee ne nag wuutee ga wuutee gu tegewut fenn la lompañ ba mënuñ caa jàpp kon dañuy jàpp ne ba léegi munkar la ba dañ ko war a soppi man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in yastati su ko mënut fa in yastati nem attanut soppi ak loxo mm-hmm. fa na ko soppi bi lisaanihi mm-hmm. ak làmmiñam mm-hmm. ku am autorité ni ki buur bu jiite mbaa borom kër kooku lum gis lu ko naqadi ci këram na ko soppi ak loxoom ndem doomam la ndem soxnaam la su fekkee nag ne ñaar yile amut nga soppi ak sa làmmiñ soppi ak sa làmmiñ nag làmmiñ la tudd dégg nga mm. waaye mën naa nekk làmmiñ ko mën naa nekk bind mm-hmm. Hmm? man ngaa wax ak ki ngay wax mu déglu la man nga ci bind it ab leetar yónnee ko mbaa ab téere pour nit ñi xam ne lii lu bon la hmm? bëri téere yu soppi mbon fa in lam yastati su mënut loole amut kàttanu soppee loxo amut kàttanu soppee làmmiñ fa na ko naqatlu bi qalbihi ci xolam da hmm? mm-hmm. ko naqatlu ci xolam mm-hmm. wa dalika loolu le nag mm-hmm. adaful iman moo gën a lompañ ci ngëm ci wàllu soppi munkar waaw mu naqadi la ndax iman dafa am martaba yi ca gën a kawe mooy ki xam ne lii baaxut mu mm-hmm. naqadi ko ba pare mm-hmm. mu mën koo soppi soppi ko mm-hmm. su demee nag ba lompañ ba mënta soppi li gën a tuuti mooy na ko naqarlu ci xolam hmm? na ko ci xolam li ñuy jànge ci xadis ji xadis ji rawaahu muslim bokk na ci li ñu ciy jànge mooy yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam fal nañu ñun ñëpp mm-hmm. jox ñu métier soppi mbon mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. jox nañu métier soppi kon képp koo xam ne gis na mbon bëgg koo soppi ca kemtalaayu uh, kattanam ca kemtalaayu mën-mënam nit ki nga gis kuy def lu baaxul nga di ko ko tere ne lay lu ci sa yoon kan moo la jox liggéeyu yow soppi nit ñi mm-hmm. ne ko yonent bi la yonent bi moo ñu jox ñun jullit yëpp mm-hmm. dégg nga liggéeyu soppi mbon mm-hmm. lu tax man raa la wax mm, man min asmail umum bokk ci isimi umum ñëpp ci dugg man raa min ko munkara mm, ñëpp ci dugg waaye nag ku nekk nag xam nga fa nga mën a nga yem fa Hmm? munkar la wax liñ ciy déggee mooy fokk mu wóor ne munkar la hmm? yow miy soppi fokk mu wóor ne li ngay soppi lu bon la ki nga koy bëgg a soppilit ci moom ki nga xam ne moom nga gis ne mu ngi def mbonit fokk mu wóor ne li muy def mbon la ci xàqam hmm? Mm-hmm. li la wóorut ne mbon la mm. waroo caa jéema taxaw ne danga koy soppi mm. feeg wóorut la mm. waroo koy jéema soppi feeg wóorut la mm-hmm. li la wóor ne mbon la yit mën naa nekk mbon de manière générale waaye du mbon ci ki koy def mm-hmm. Hmm? mën naa nekk mbon te fekk ki koy def moom du mm. bon ci moom mm-hmm. loolu mooy lanay misaalam mm. lekk ci bëccëgu weeru ko mm-hmm. mbaa naan ci bëccëgu weeru ko mm-hmm. ku ne xam na ne loolu lu bon la waaye nit mm. mën naa def loolu te fekk bonut ci moom nit ki ki nga xam ne dafa feebar ba dog dagan ci moom nga gis ko muy lekk ci bëccëg mbaa muy lekk muy naan ci bëccëg balaa nga koo yedd wala nga koy waar laaj ko ba xam ndax dafa am lu ko jot mm-hmm. laaj ko ba xam ndax dafa am ngant mm-hmm. walla muy tukki mm-hmm. dégg nga nga gis ko ci dëkk bi rek moom ma ngaa añ yow xamuloo lu xew nga ñëw dal ci kawam tooñ nga ndax lekk ak naan xaraam na ci bëccëg weeru ko waaye xaraamut ci ki feebar xaraamut ci ki tukki hmm? fa man kaana maridan aw bihi nu mu ko tudd aw ala safarin mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. aw ala safarin mm-hmm. fa iddatu min ayaamin uxra shahru ramadan alladi unzila fihi alqur'anu hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda walfurqaan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyaamin uxar hmm? dégg nga de bi ci desit hmm. fokk liñ ne munkar la hmm. mu nekk munkar guñ dëppoo hmm. niñ ko junjee woon sànq su fekkee dafa nekk ci masaayil xilaafiya du ñu jéem du ñu diingat ki koy def te fekk mu ngi jàpp ne loolu la duwut munkar yow ci sa madhab lii munkar la moom ci madhabam di du munkar hmm. te ñaari wax yëpp am tegtal yu wér hmm. kolle kenn du ko yedd walla ñu di ko waar hmm. wala ñuy jéem a soppi la muy def ci asaasu ne munkar la lu dul nag muy xilaaf boo xam ne du xilaaf bu am euh, solo du xilaaf muctabar nee ne walaysa kullu xilaafin jaa muctabaran illaa xilaafan lahu xawun min annawari waaw xilaaf rek mm-hmm. lu tax ñu ne ah nañ ko bàyyi ndax dañ caa wuute mm-hmm. fokk mu nekk xilaaf bu tegee ci teguwaay mm-hmm. lan mooy xilaaf bu tegee ci teguwaay mm. mel ni nga gis kuy lekk yàpp gëlëm mm. ba mu lekkee ba pare di raxasu julli mm. te jàppaatut bu ko dingat de am na ñoo xam ne hmm. jàpp nañ ne lekk yàpp gëlëm hmm. dafay yàq njàpp hmm. waaye am na ñoo xam ne ni ki ñun almalik yëtu jàppuñ ne lekk yàpp gëlëm dafay yàq njàpp ki nga xam ne nag dafa jàpp ne yàpp gëlëm bu ko lekkee dafa war a jàpp moom bu ko paree na dem jàppi waaye bu gisee ku lekk ba pare daal di jóg jàpput na xalaat ne ah comme masala dañ cee wuutee hmm. te li wax ni tegee na ci teguwaay hmm. waruma ko diingat hmm. waruma jéem a soppi loolu moo tax fokk munkar bi nekk luñ dëppoo ne munkar la waaye suñ coo wuutee rek dégg nga doo ca sañ a diingat kenn nag suñ coo wuutee doo ca sañ a kenn wax jim ne fal fal yugayyirhu bi yadihi hmm. ndax maanaami maanaam dañ koy bàyyi ala itlaqihi hmm. wala euh, bu ko mënee rek hmm. dégg nga dafay soppi ak lu ca mën a xew maanaam dañuy ba dañuy dañuy déggee loolu ne boo mën a soppi rek soppil ak sa loxo wala hmm. dañoo war a xool ndax su ma ko mënee soppeek sama loxo hmm. ba soppi ko it hmm. est-ce que du ay conséquences fokk nga nattu conséquences yi ni ki ma xam ne lii mën naa ko soppi waaye su ma ko soppee dana jur fitna ñuy xool fitna ja muy jur ndax moo yées la may soppi walla moo ko ëpp su fekkee ne moo ko ëpp rekk waruma soppi su fekkee ñoo tolloo walla mu yées ko am na ñu ne it ba léegi waruma soppi gannaaw dana jur fitna waruma jéem a soppi hmm? da nga gis koo xam ne boroom doole la mu ngi def loo xam ne jaaduwut nga ñëw soppi ko waaye moom mooy dëkk bi buur la hmm. bu dee sax dafa jéng hmm. soppi ga nga jéem a soppi loolu hmm. mën a jur ci yow fitna baa ci sa njaboot baa ñi ànd ak yow su boobaa da ngay wàcc ci dere derejab soppi gi nga xam ne moo dul jur fitna buur moom bu ñëwee fekk ab baar sañ na ko tëj Mm-hmm. sañ naa dam sañ naa jël sàngara ya fa nekk yëpp toj mm-hmm. waaye man su ma ko defee mm-hmm. mën naa am ñooña dóor ma te du mujj fenn mën naa am tamit buur jàpp ma tëj ma kon naa wàcc ci wax ko ngir ba ba ko ba ñëpp xam ne baaxut waaye bu ma dem di ko jéem a soppeek loxo su boobaa lor mën na mën na caa juddoo gu gën a garaaw lor gi nga xam ne moom lañ doon bañ wata ibnu taymiyata ba mu gisee waa tataar di dajaloo di naan sàngara mu hmm. romb leen waxu leen dara hmm. ñu ne ko doo soppi lii doo leen doo leen doo leen wax mu ne hmm. ah ba leen ñoo xam ne buñ naanut see la def mooy dugg ci kër jullit yi di leen rey ak di leen siif buñ nee di naan ba leen ñu soxlawoo loolu fal yuxayirhu bi yadihi loxo la tudd waaye ki am autorité rek la bëgg a wax mm-hmm. na ko soppeek autorité mm-hmm. euh, ndax jëf yu bari loxo koy def mm-hmm. moo tax mu jooyal tudd loxo rek hmm? ni ki waxam jim ne moom alxu ni alxuraan waxam jim ne fa bi ma kasabat ay diikum mu mel ni loxo rek ay fàggu te pourtant tànk dana fàggu bët dana fàggu nopp dana fàggu waaye bu ñu jooyalee loxo jëf rek lañ ci jublu Hmm. hadis ji dañ ci jàngee ne hmm. lislaam hmm. du diine coono boo bëggee dara te mënula ko nga xem ci li nga mën duul diine coono ki mën a ki ki a soppi te kàttanam àggut ca na yem ci fi kàttanam àgg moo tax mu ne fa in lam fa bi lisaani ndax yàlla wax na ne ragal leen yàlla ni ngeen ko war a ragale hmm. xëy na am na ñoo xam ne hmm. xàgg nañ foofu le hmm. sama gi ci xàggut nag mu ne leen fattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla kem talaayu seen kàttan mu wax ne ne laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaa yàlla tegut benn bakkan lu mu xàttanut ak laa yukallifu llaahu nafsan illa ma ataaha hmm? moo tax yonentu sallallahu alayhi ne lu ma leen tere baleen ko ndax ba moom ñépp mën nañ ko waaye lu ma leen digal nag def leen ci lu ngeen mën hmm? maa nahaytukum anhu fajtanibuhu ba moom yomb na da bañ a def rek def moo jafe moo tax lim ne nañ ko def mu ne def leen ci féeg yéen a ngi mën hmm? kon diine ji dina yombal la mm-hmm. soo mënta soppee ak sa loxo mm-hmm. eh, nga wax ak sa làmmiñ mm-hmm. waaye wax ji it na ànd ak xikmatu na ànd ak eh, xikmatu udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawidati alxasanati wa jaadilhum billati hiya ahsan bu mu nekk waxi saaga bu mu nekk waxi ñàkk teggin niñ koy gisee ci télévision yeeg réseaux sociaux yi su fekkee nag mënoo soppeek loxo mënoo soppeek làmmiñ mm. nga soppeek xol mm-hmm. nan ngay soppeek xol mm. mooy nga sip mm. mbon gi am ci sa xol te dogu ne bés bu ma ko mënee soppe ak loxo mbaa làmmiñ danaa ko def mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. léegi nag ndax mën na nekk ak aw nit ñuy def lu bon ma ne ah man de neexut ma waaye aw ma pexe maa ngi ma toog ak ñoom rek Hmm? ndax bu ma jogee mën nañ maa mere wala mën nañ maa sikkal hmm. waaye liñ fiy def daal neexut ma hmm. da dem ci barab boo xam ne ay jàng la ñuy wax ne ñoom lañ fay woote fay def yoo xam ne neexut yàlla te boo waxee mu mu jur musiba mbaa fitna nga toog mbaa barab boo xam ne ñu ngi fay wax loo xam ne jaaduwut nga toog ne waaye yaa ngi koy naqarlu ja sa xol daa déedéet fekkee yaa ngi koy naqarlu kay te mënoo koo faj ak sa làmmiñ hmm. mënoo koo faj ak sa loxo hmm. jogal dem hmm. jogal dem ndax bu fekkee ne naqadina la ci sa xol waaw doo ah, fi xadiisin gayrihi ni ko sama borom waxee falaa taqudu maahum xataa yaxudu fi xadiisin gayrihi innakum idan mithluhum hmm. nee na kon yéen ak yaa ngi ñoom hmm. hmm. a yem lu dul nag mu nit ki nekk foo xam ne dañ ko forcé nit ki mu nekk foo xam dañ ko jàpp barab boo xam ne mënu faa génnal boppam wala su jógee bëgg a dem mën naa am ñu gaañ ko kooku illaa man ukriha qalbuhu mutma'innun bil iman kooku dafa bokk ci ngànt hmm. yi hmm. yonentu mu ne yàlla jéggal na sama xeet hmm. dégg nga luñ fàtte ak luñ leen forcé leen forcé danañ jàngee ci xadis ji ne xol dafay jëf waaw jëf du cër rekk a koy def du làmmeñ rekk a koy def waaye xol it dafay jëf lu tax fa in lam fa bi qalbi jëf hmm. xol dafay jëf hmm. dégg nga hmm. jëfam nag mooy pas-pasam ak yéeneem ak yaakaaram ak ragalam fas gi nga fas ak yéene gi nga yéene ak yaakaar gi nga yaakaar yàlla ak ragal gi nga ko ragal yooyu yëpp jëfi xol la moo tax kii mënut jëf ci loxo mënta jëf ci làmmiñ hmm. ñu ne ko na jëf ci xol nu muy jëfee ci xol hmm. mooy naqarlu hmm. ci xolam ak yéene ne bés bu ak dogu ne bés bu mënee dana soppi lii moo tax nga xam ne kon liimaan euh, du rekk pas-pas waaye du rekk jëf ñaar yëpp la liimaan jëf la ak yéene wala wax la ak hmm. ak hmm. ko defee wax moom làmmeñ a koy def hmm. jëf na xol dana ko def cër dana ko def te borom xam yi wax ne mooy an nutqu bil lisan al ictiqaadu bil janaani fas ci sa xol an nutqu bil lisaani ak jëf ci sa làmmeñ wala amalu bil arkaan ak wala tudd ci sa làmmeñ wala amalu bil ak jëf ci say Hmm? Mhm. Mhm. fii nag dafa mel ni def na ko ñetti martaba mhm. martabaam jëfee mu naqarlu la nga nga ak sa loxo waaw mu naqadi la nga ba tax nga jóg soppi ak sa loxo ak mu naqadi la ba tax nga jóg wax ak mu naqadi la ba tax nga yéene ne ba nga nga nga nga yéene ne lii de su ma ci mënee dara danaa ko dindi hmm? moo tax ngëm hmm. moo làmbu jëf yëpp hmm. waaw ngëm hmm. moo làmbu jëf yëpp du pas-pas rek yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ngëm juróom benn juróom ñaar fukki shu'batu la ak lu teg lu topp bidu la wax bidun wa sabuna wa sabuna shu'bata am na wala mu ne waa aji raawi ji ne aw qaala biduun wa situuna shu'ba mm-hmm. juróom benn fukk ak nàngam mm-hmm. muy bari na rek ba ci gën a kawe mooy la wax laa ilaha illallah mm-hmm. nee na ba ci gën a suufe mooy imaatatul ada an tariq dañu lor ci yoonu jaam leen lor hmm? wax laa ilaha illallah waxu làmmiñ la dégg nga imaatatul ada jëfi wax na ne al xayaa min al imaani xayaa mm. mm. jëfe xol la xayaa jëfe jëfe jëfe jëfe xol la mm-hmm. kon nag mm. jëf yi kenn du wax ne dañuy mottali ngëm waaye jëf yi ci boppam ci ngëm lañ bokk mm-hmm. ngëm bu àndul ak jëf ju baax ngëm amut mm-hmm. waaw ngëm du wax du rek ci xol waaye fokk mu ànd ak jëf mm-hmm. mm-hmm. jëfit su àndut ak pas-pas bu mm-hmm. wér kenn du ko tuddee ngëm hmm? nañu yàlla boole defal ngëm ba ànd jëf ndax ngëm dëgg-dëgg fay ànd jëf ni nga xamee ne imam Buxaari euh, dégg utal na ko ab bunt hmm. waaw dafa ko nag ab bunt hmm. hmm. fal yugayiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi dégg nga fa in lam yastati fa bi qalbihi loolu dafay mel ni bépp doomu aadama rek jagoo na ko loolu la waayiru xadis bi di wane waaye bu ñu delloo ci alqawaidul amatu hmm. dañuy wax ne hmm. duwul ne ku nekk rekk hmm. moo mën a soppee nu nekk yiñ jiital yëpp fokk ñoo sàmmwante ak ñoom fokk mu leer na ne munkar la fekk fokkit mu leer na ne munkar la ci xaq yi ki koy def fokk mu nekk munkar buñ dëppoo fokkit yooyu nga abilité mm. mën koo soppi ak mm. loxo mm-hmm. mooy am nga autorité mm-hmm. su dul woon loolu ku nekk dana dem rek mm. gis ne kii mu ngi def nangam mu dem dal ci kawam mm-hmm. bu ko defee fawda lay jur waaye koo xam ne yore na ak fal mën naa soppi walla borom kër mën naa soppi ndax yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. mm-hmm. ngi dégg mm-hmm. su nag nit ki amut habilité yooyu mu wàcc kon ci daawatu dégg ak amru bil maaruf dégg wax ak nit ñi ak digal leen su fekkee ne waxee duñ ko dégg wala mënta wax hmm. hmm. li gën a tuuti nag li gën a tuuti mooy mu naxarlu hmm. ci xolam mooy mu naxarlu ci xolam dégg nga su ma nee def daawa mu nekk ci jàkka yi ak ci daje nit ñi di woote su ma nee def digle muy digle di tere mooy wax li yàlla digle ak li yàlla tere ba leer ci bopp nit ñi ki am kàttanu soppi nag hmm. moom na soppi hmm. ak loxo su fekkee mën soppi ak loxo hmm. su fekkee su waxee nit ñi déglu mu wax ki mënut yii da yem ci naqarlu ko te ne bés bu mënee dana soppi wa dalika yonentu ne loolu la nag adaful iman ne yàlla may ñu ngëm may ñu ngëm gu mat wa ala alihi wa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim amiin